Ah, mbokk yi ba tey ah, ñu ñëw rek ah, fi nga xamante ne ni moom mooy suñu studio bi ñu am fi nag gan bi nga xamante ne nii ñëpp a koy laajte ñëpp koy faral di laajte <laughs> yéen a ko gisandoor kii mooy ki nga xamante ne nii moom mooy One Pac <laughs> ana ñu namoon One a ngi nii ñëw na One Pac looy xaajaan looy def nii One Pac lii lan la moom la léegi lu waral jug bi ak defaru bi lu xew pour pareel gars yi. wal paak yow lu la métti. lu ma naxare mooy waxi ST bii nii. ah lu xew lu xewati si ST. kii man suma team moo ko xaaya. mu ne man suma ko nekkee du play. Mm. mu ngi mel ni dropping down. lan la mooy ragal man suma ko lay nekk au share platform yi de. Mm. so mu ngi mel ama he is like saying that what it takes to be there anymore. he is threatening or terrified about me. Ah, I one back. pack. I'm one get, pack. I'm getting stressed about it, and I don't want to go extremely rude and brutal on it. Because I promised the Gambia that I will pave my way and be someone different and how they want to see me. But let Gambia tell them to let me be, man. If he ain't get confidence on what he is doing, let him leave it. Lloyd, that's all you mean by no more vehicle problem but my next attack gonna be on him yeah looloo nahare. Lolo looloo la naxare yow ST rek na ma bàyyi laa bëgg na ma bàyyi ST moo la naxara na ma bàyyi yaa understand parce ah. que kooku maa ko mun I understand Yo, yaa ko mun physically maa ko mun I understand lyrically maa ko mun lyrically yaa ko mun soo gisee bentee man si biir boppam means I get what it takes for him to memorize me you get me I don't remember that kid you get me na dem try poose gémmiñ am imaan moo gën namba chill spot is my label chill spot is my label you get me hmm. yeah ñooñu leen dem pour book ko yaa ngi understand hmm. man maa puus ñooñu sax pour dem ñu ñu ko family business this is music you get me waaye muy dem ñu wàññi foogoon na ne man naa déggalul one pack su fa nekkee du ma play lu tax ma wax loolu yaa he threatened that he has no more, he, he don't own nothing in Gambia again. Nintata Luelo, Ninata Lueko. That was then, this is my time, sign dry, I'm keeping it moist. Gambia warned the boy to let me be. Because you Gambians were talking that I should let him be, I, uh, which I have done, and I've done, uh, uh, uh I, am not even thinking of him. You get me? You, the same Gambia, warned him, yeah? Remember, I'm just out from that mile two thing you get me yeah man boo gànguma benn day def pour def ko lu seer delluwaat mile two lu ndaw la. one pack loolu ëpp naa def di. def ko lu seer def ko lu seer delluwaat mile two. yeah su ma bàyyiwul laa wax. ah one pack mu ne ST bu ko bàyyiwul dina ko def lu seer ah, delluwaat li nga xamante ne ni moom mooy Mile 2 mbokk yéen a gis one pack ana ñu namoon one pack one pack ay nii tey moom tey si studio bi nar a waxtaan ak ñun. man maa ngi xalaat Wally Seck Bala bi laal. Wally Seck Bala boobu nu mu fa nar taajoo. ko fatin February. nu a taajoo noonu. guddi mbëggeel Valentine bi yëgoo. guddi mbëggeel. Ah. kanaa kan. Wally bala seeka hmm. nga nar faa dem def nga nar faa dem def lan nar faa def lu dara jarul faramaare gi yow <laughs> wan faa gu ne faramaareer wan faa gi waa ji nu mu fa taajoon na ji nag yee boobam xaw ma ko bugguma koo xam bugguloo koo xam lu xew xeeta la bad mind la lu tax nga wax lool because buggul jaamu kenn boobam rek la xalaat he self centered selfish kon Faak loolu ko naa wax de. man lu may wax dama ko ñemee da teg wér laa leen dee teg ji baaxuloo sa xol bi moo bon. yow ji lum la def ba nga ne xolam baa bon. dafa fen dafa fenal bisul bisul bisul. lu ko fenal bisul bari mu ne ma ne mu saay ma kan laa man ana man ana ji pour mu saay ma ji dafa ëpp xayat. yàlla ndeyam ak baayam ñu am baxa loolu rek ko sowe After, after that saying nothing, read every comment you're saying. I will respond. Read it, read it, read all comment there. One pack. One pack. Yang ma ah? <laughs> One pack. Why you gis energy? na ji mu ngi sign ki wide te ko am good things. Lu xanaa am bad things man maa ngi am good things. de waxuma yow tam da nga am bad things de. waaye fooguloo dina nekk in a very good position pour ngeen collaborate. can we do anything anything pertaining to ji bugguma ko. bugguloo anything pertaining to ji. yeah anything connected to ji. ji hmm. bu balage jërëjëf suur naa yeah yes. The Dudul Magoa, dual. Why the Zanga Musu is spoiling his career. Yeah, Luther moved general royalties at YouTube, general why the royalties. Why is he getting paid and why he is not getting paid? Man, why did we be supposed to how much was it But no, no, man, no artist, man, revolutionary, lah. Huh? révolution lu fi banque ñu taali ko lii dafa baax man bugguma wawaye ji big expo ji ah One Pac a ngoog ah, One Pac One Pac bi nga xamante ne nii moom moo nar dem jàkkaarloo ki nga xamante ne nii moom mooy ah, Wally Seck guddi Valentin guddi Valentin mu ngeen <laughs> mbëggeel gi one pack yàggul nii léegi rek euh, buñ gisoon ci ARC si ñu dem euh, seeti visite li nga xamante ne moom mooy Mile 2 pour dem investiguer fa loo gisee loolu. fan. Mile 2. Mile 2 da dem. TRRC ñoo fa demoon. soo leen demee soo dem nañ ba pare. waaw dem nañ ba pare. gis nañ li ñu war a gis yéen. Ah, lu mu tax ñu laajte la ko di. di di maa la wax fen bi uyu ma. Mm. fekk fekk Gambia ebaluñ ma man man man ah ma àndaa. anybody dem mile two doo leen gis loo leen bëgg a gis yëpp mile two. Ah. yee. kon dafa mel ni TRRC yow leen war nañoo. gisuñ dara dañ leen screen screen leen leen def dañ leen screen fu ñu war a gis gisuñ leen booy gis leen waañ bi gis leen dek waayu nit gis leen bathroom bi gis leen confinement bi gis ngeen remind bi gis ngeen visitors room bi gis ngeen seen infirmerie bi bu ñu wax ne l'hôpital gis nañ fa this is maa tuub ba si suuf yëpp tuurkat leen the administrators are all liars from the DG down to the last dumper they are all liars baaxuñ waaye suñ leen tëjee dinañ xam dinañ test the put eh, dinañ am feel the test of the pudding you get me booy ñun ñëpp am nañ mbokka maa tuub fa xamut nit am nga fa mbokka ne man dama génn mooy lem damay fàtte foofu non it's my number one problem I'm going to talk about them by being purchased by force. Yeah. The Adama Barrow boom talk, na them, na na dohan to call my kogi. Lawyer Dabo mom to go them because nekk na Jew doon code fa la nekkoon change na demaatu ba faalewul fa sa waat waaye Adama Barrow bu nekk président na waaxu maay tuubooy mu gisee président yi waxaa ñoom man dama wax waxi Lawyer Dabo taar boobu féeg yu nga may wax la maa ko wax maa tey kum naxari booy nga ñëw arrêté ma nga seet su ma bakkee ñii dañ baax pas yu weekend yii nii booy man nooy di noonu tell me something different booy wan paa bul mer waaye gis nga fi mu nii sa fans yi yëpp laa seetaan yow ngay mer su ma fans yi xam ne ne man am not fake they know that I'm real Lawyer Dabo, you, you are at the right position of changing my too. But you are not doing it. da nga yaakamti woon rek pour génn nga faate doomi jàmbur yi foofu ak ñu la doon póotal ñu la doon abal la ngay tëdda karankoo yu musal la si karankoo yeeg yooyu yow lu xew Adama Barrow this is going out you from one part by Musa Seka boy take a walk to my tour you see what's up for yourself boy Lawyer Dabo is disqualified even because he will never do that ñi seen booba leen ku nekkaa ngay takka jabar Sénégal am international account ñu ne Yaya Jammeh moo fi yaaxoon ba xabi de waaye gisuñ fi dara nag yes ñu régime mu ngi nii nag danaa ngi yaa man dama koy man I don't give a shit yeah kum naxare nga ñëw nag yeah and I'm doing my thing man la si wayale naa ko lii dal ma comment yi booy. one fact one fact yow ah, am na am na am na ñuy seetaan ah, ñi nga xamante ne nii bëgg leen nga wax ñu nga wax leen yow lan nga dundoon si mile two bi ba tax nga nar a focus on si mile two bi nii. li ma fa dundoon. Mm-hmm. ah mooy métti rek métti rek laa fa dundoon yaa ngi woon saan mm-hmm. disrespect human being yàlla sa yàlla sa su la dugalee jahannama ah, daf la dee jox cër waaye mile two bii nii booy Bentay boy, nara change you for boy. Yena is la boy. Yeah, you understand? So for amud moga, am nga fa, am nga fa harid. Te hitna am pa am nga nga am pa moga, hitna am nga am fa harid. Yeah, you understand? Yeah, you feel. And ñu ni neen la fii Gambia bi dafa ndaw xamante nañ bàyyi force yaa ngi understand lu ma fa dundoon mooy lu métti ak lu tilim yaa ngi understand maa tuub bi sax léegi-léegi dañ naa dee téye boo ñu ne visite du am yaa ngi am na sax yow koo tëj nekkul si boppam nga ne du am visite ku koy seeti si biti lan la mooy am nit sax bi na na ko am du ko am you get me my next target is going to the schools you know one like GDDI and the Gambia University University you know sensitize with them and share my experience with them. yaa ngi understand waaye mile two bi baaxut human right ñoo war a jóg carrément booy by force ñu dugga any any hole booy oo ñu call ma booy two two five eight four one three booy ñu dugga any pax am naa fa booy ñu demaa ñoom booy lu fa xew yëpp naa leen nu mu fa demee suñ fa demee dañ leen dee screen fu ñu bugg a gis dañ lay gis yee da ngeen foog ne amul ku nekk si biti ku leen mun a expose maa ngoog expose o yëpp laay wax et puis soxor yi baay yaa ngay fay tax suñ yaay yaa ngay fay tax loolu pour la la it's for it's people like them ration buñ leen leen day jox seen feeding bi booy cekin maa la bu fanaan maa spend two hours doo ko ñemee cobaat ndig lan bad diet doo jël toogakat yu baax government bii laa wax government bii nii do len de lo len dul jot sen domi bu len ko jox president yi boy yen da ngeen wicket billahi da ngeen soxor boy yéen ñu bon ngeen maan stupid government ma ko wa sa boy come and arrest me boy ni dañ wicket man boy ba ma dox ba yàlla booy. déedéet wan paa bul dem ah kay yow sa fan ak laa ngay dem bul def lu ñaaw weekend yow tam ni dañ wicket man sa fan ak laa ngay dem mané muy jawara jawara. muy Yaaya Jaame mm-hmm. muy Adama Barrow mm-hmm. lekka bu nekka maaltu kenn du ko jox sa doom toogakat buy tooga maaltu kenn du kenn du leen toogal lool pour nga jox ko seen doom yi mm-hmm. yaa ngi understand am trop am am am putting it to these three regimes which has passed and the current one so let them do something ay doomi jàmbur ñoo nekk maaltu looya Darboe foofu la nekkoon naka la tee du vice président Aha, uh-huh. can I have eh, like, can I don't can I don't need or can I don't whatsoever you rather be? These are obstacles bound to occur in life, yeah? When they do, we take it in good faith. You get me? Do, or do not do not elapse on judgment that one is incarcerated or one is been tried and whatsoever. You I mean, think like he or she is a bad person. You get me? It's wrong. It's very, very wrong. Yeah, I understand. Yene eh, Gambia talk. Gambia talk. Stop the hypocrisy. This foolish government. They dealing with politics. Huh? Ah? Sanyang, from Sanyang to Gunju, there is no straight line. Yeah, I Jame Moko phone. Where is the use of this new government? All fake. Middle finger. Buko edit na, middle finger boy. He's a wicked man. Tell me what the comment reader's name boy. kii You are like an ex-president. president of 2021 election No, you are like an ex president boy ah, I will jail Adama Barrow I will jail lawyer Dabo boy and I will jail the director general of my 2. They will taste the bitterness of that fucking place. You don't know. You think I'm here for job. Mm -mm. I'm not, my life will be short. Mm -hmm. So anything now. Ah, dama koy I will set a legacy before I die I have a short life ma respect office bi I don't wanna be rude. mu ne mu respect office bi bugg ta bugg ta rude one part ñu wax si li nga xamante ne moom mooy open mic bi. open mic bi. nga ko gisee woon maa ko toj. yaa ko toj. la ko tojee. waaye gisuloo ko damaa yow yëpp ñu fa woon. noo ko tojee one part. gisuloo bagage maa yow fa nekkoon ñu seetaan nekkuñ fa di. You said that. Uh, na ñu fa nekk toog nañ dem YouTube ñu check. nu mu fa taaja woon noonu. ma ko waya santa thumbs up to Wagan thumbs up to Black Lens thumbs up to Dogi you get me. <laughs> te I'm very satisfied with the uh, presentation and you know I mean the appear appearance and the segment they even put me in. Nothing. you you yu yu yuuxu naan ne waruma nekka si segment buñ ma buñ ma buñ ma buñ buñ eh, ma def. ban segment naa war a nekk suñ ma fa deful ah seen naa fee hashtag yi hypocritical system yi génnee leen ma si man li may def daf ma neex. yaa ngi naa fee ñoo doon def loolu. ñu ne man open mic bi niñ ma indee is not fair. yow five months plus rek ñu nga ñëw open mic doo sa ndeyaa watch me next year yeah waaye man I have nothing against open mic de or black links de thumbs up yeah. te maa ngi remind remind benn nit Brikama Brik Bricks boy chief chief la tudda Yankuba hmm. Yankuba boja hmm. Gambia won len ko mu bayma suma bayu dama koy ut rek ah, ma def ko lu cher Yankuba Bojang yes yang yang woon sa suma different be walta yëpp moko kos, yang yang ngi sa suma man taati walta man man tar maruma walta ah, man dama am suma own talent yang ngi woon sa soo gisee ma ko dee spare oncle Walter la yaa ngi understand waaye right now I get it here su ma bàyyi dama koy yor te dinaa ko def lu seer maa ko gën a bandi kon baa foog ne loolu jar na ko ñu dem rek ñii de maybe they take may maybe they take this music as religion or whatsoever man I can survive without music yeah man du ma mën taati kenn de waaye luy dëgg rek dama koy wax ah Brix boy nama bàyyi yeah and Walter tamit na na nga ko waxal sa affaire moo tax boy muy yeah you get me man game bi man si biti sa daf ma cause I'm rolling with the fake I'm rolling with the fake get the loved ones killed this is the deal nonsense one i am uh, na ñuy seetaan ñu ne dëgg nga nekk di wax waaye saaga bi nga war a bàyyi. saaguma dama saaga fii saaguma dara I'm just annoyed you get me yeah and I'm not looking for praises or or or prayers utuma ñaan utuma praise you get me duma mën a toog si office bi ma ne maay saaga damay disrespect office bi benn you get me. damay disrespect suma boppa te office bii ku ko ku ko bugg a disrespect man ngaa njëkk a am so starting from me no disrespect from me to this office yes this office made me what I am today this is it te Pa Ousmane nag thumbs up sa morom yi suñ baree Gambia ñu dem waaye naa feexa yooyu noonu one part si open mic bi ñu gis na nga ba simisam boobu nag kay. xamuloo loolu man ni nga ma ka man la. lu waral simi bi yaramu neen bi. bugguma nuroo ñoom booy ca buloo ñëpp a ngee simeeku bu ma simeekoo duñ copy seen own thing check my new coming out. the crucifixion of one back on a cross mu ma mu ngi ñëw génn man dama tal nii. am na ñuy laajte ñu ne ne ñu ne tax nga dugg si music. li ma lu tax ma dugg si music ah. Mm-hmm. du pour fame oh I just. nonsense musique musique yi nonsense bi moo bëri Gambia te dama so dama bëgg a déglu suma dëkka so I have to change every nonsense or nonsensical music in this country boy make it real fii ku fee woy dangay woy lu am ak lu real ak lu taxaw waaye ngeew-ngeew yii nii moo fi jee this is it bul jom benn bul jom benn comment su ma saagee sa riit ko dinaa riit yëpp kay man dama laa as lu ma laa lu ma laa li ba pare ma soog ko tan lo ñi de xamuloo sa ni ma mere yi mooy waaw one pack si si si open mic bi lagi ngi la like bi nga bi nga doon waaj si mi ngi pusan pool lo nu mu fa yeah nonsense man boobu noonu watchman doomi watchman boobu dina taxaw si bunta ba mu dee xàmmeewu ma ko sax ak ak xetaam bu bon mune ne man duma si biir lu tax mu ne doon waagaan ko ne hey xanaa dof Ki mooy one pack la am yoon that nonsense dirty man koo xam ne maa ko gën a xees. yaa ko gën a xees. xamuloo loolu mu xeeñ xun amul price ni nguuka ku bon kooku noonu read everything bul jump. man man kay jampuma anything. one baag am na kuy wax mu ne you are always on the point. cause real recognize real. one baag big up. Big up to. tell him tell them one part ñu ne nga wax leen. yee li ma leen lay wax mooy wax ji nañ dem ñu toppatoo doomi jàmbur yu ñu tëj seen yaay ak seen baay ñu ngi fay tax yaa understand pour seen welfare booy yéen a ngi nekk leen may tuub bi booy di cob seen baax bi booy kuy de kuy diji may tuub bi léegi woon David Koli la woon afa nga am booraa Koli right now kan la. ñu ngee compaa bi rek di jël suñ official véhicule yi di ko def ceesekaay yee foo waaye foo waaye ñu ne sugar daddy ñoo ko yor sugar daddy six pot ah it's like the old gov old regime is coming back yeah stupid people am na ñu nekk di wax ñu ne nga dem TRRC nga testify ma dem fan TRRC They need me than I need them. Let them call me 2258413. am na ku nekk di wax mu ne one pack bul mer yaa ngi ak sa fans. ah dama mer booy. gisoo gisoo maa ngi laa wax sa fans yaa laa seetaan. suma fans yi dañ ma like booy dañu xam ne real thing laa booy du ma fake am na ku la nekk di laaj mu ne ndax da nga bëgg a nekk artiste wala da nga bëgg a nekk président. man luy jubal rek laa bëgg doon. My past life was fake, and I'm living this last life in real thing. You get me? Anything which is real, I'm rapping it. Either being a president or an artist, I don't give a shit. I'm a revolutionary. Yeah? Say no to crime, uh, no to corruption, no to disrespect, no to bending. You get me? No, no to beating about the bush, boy. They get too much torop man. One gets not a Gambia like Paus man, I can't do what they got, boy. ak Gambia Talent Promotion ñu si des yëpp yéen a xam kiss my fucking ass. gis loo yaa ngi saaga sa fans yaa ngi wax loolu right now am na ñu la nekk di wax ñu la keep it up big up one part. non they know what's up they know what's up let them go to mile two boy you check man bu ma nekkoon mile two ah Buba Colley suma kaw la dee benn boy Buba Colley la tudda biri biri moo ko téye. am na benn disease bu fa nekk yaa ngi saan diet bi moo ko dee cause yaa ngi understand naka la ko dee cause nga jël bànni anywhere nga ne kooku ñoo ñoo ñoo toogal ay nit maalo bu dee da ngay mën a teg maalo nga gis ndox si suuf da nga du da ngay jama façon maalo yooyu ah soo ko lekkee disease la dee cause bu tudda biiri biiri soo ko dee cop daf la dee jox am swollen body yaa ngi understand su àggee ba sa yaram bi ba sa xol bi yaay ngi understand you die su àggee ba sa booba bi you die paako boobu loolu ko rey te mu ngi rey ñu bari maay tuur nag yaa ngi understand dama ko may ndox ba fajar salaatu xayrun minal nawmi ma soona ma tegal ko beneen ndox ma tegal ko ko ma ne ko nag boob xam nga dal soo soonee ah soo buggee naan mhm. naanal lii bàyyi ma relax tuuti mhm. mu ni mu waaye mu tàng ma very well mhm. afa ma tëdda ma tëdda si kaw suba baby nii ah ma dëppoo ah ni ma dëppoo booy suba laa eewu rek billaahi benn français maa ma boogoon seet juwel la tudda juwel ah kooku yuuxu naan mer xam nga si français mer bi ak noonu ñoo xam xam na ne na yaa yaa sax maa ngee nelaw benn tey noonu lañ ko génnee ekkite suma kaw can you imagine they are killing us every day nekkut ne ku nekk mile two is a offender ñee ne they are just a victim of the circumstance you get me mile two su ma duggee mile two te ma weeye leen ñoom ñëpp attaque government bi nañ ma jox license nga seet su fekkee ne buñ ah nañ ma jox license ñu seet billaahi wala ta awul defile mile two dama leen ay defile adduna bi yëpp a leen ay xam naan ne ñooy fen naan ne da ngay jànga alxuraan da ngay jànga métier yëpp duul la xamuloo loolu dañ dee am contrat si biti contrat si biti ah like da ngay am ah, nga wax ko construction officer in Mile 2 mm-hmm. mu ba mu la bunch of prisoners you get me mm-hmm. convicts mu yóbbu leen liggéey loo leen jox leen manis afa mu collègue baxaam bi mu indiwaat leen lu dee daw maye tu boy soo leen ko xamee eh? billahi walaay talaay doo leen wax président yi laaj leen it's all fake dara xewu fa xamul loolu man dama koy wax dara xewu fa man dama bëgg ñu ñëw ñu arrest ma boy. su ma waxee fen ñëw leen ngeen arrest ma te ku ma arrest si fen dama laa rey pak amul na nii naan si biti yàlla toog o télévision de I don't give a shit anymore amul loolu I get it up to here dafa doy booy ku ma bugga nga ñëw arrest ma waaye soo may arrest ah produce and you be uh, and you stand firm nag because soo koy try dama laay rey rey kill kill mooy deal bi nag yaa ngi understand mhm. indi tool booy naan they are doing something government bi nekkul di def dara xanaa cob baax nit ñi rek seen doom yaa ngi enjoy oh, nonsense yii nii riidal yëpp kii mu ne uh, don't listen to what they say you are good to what you want you know that it's true am na loolu am na ku nekk di wax mu ne yow yaa copy ST si open mic bi by removing your t-shirt xamul ST foo track la drop ni ma muubee crowd bi munu koo muuf léegi xoolaam bi mu ngee bon suma Wally Seck bi 14 février suma suma bagaw moo ko créé man maa leen pousse si moom pour ñu def ko fa man dama iñaan su ma iñaanee yal na ma yàlla xalal waaye ndoo boobu nag naa léegi ay gerte nekk su ma bàyyi ah dama koy yor maa ko mun doomi luwaas boobu noonu. jabaraam binta ñun ñoo ko ko may binta binta jabaraam binta ñun ñoo ko ko may. si suma benn cousin sister la day ñëw bii bii la tudda bii bii mu ngi tudda mu ngi dëkk kaaci kali time boobu mu ngi luwaa sax bu rookee këri nanka di booy maa ngi dëkk suma kër man luwaa suma doomi haram bi bu ma wax loo you know what let me go déedéewul dem ñi yang laa laajte de yow yaa mari every comment ba pare nga bëgg a dem waa kii mu ne what is your problem with Walter Walter I don't have no problem with Wada. Wada is very nice boy. Chief, uh, chief, huh? Chief, mm-hmm. huh? I don't have no problem with Wada. Chief, ak al toppe doomi almuudu yu yu jógee Bakaw ñoo dëkkaa moom yaa ngi woon sax di ko subooru xamuñ Walter xamut den foog ne Walter is a fool Walter is from the street yàllaa ko benn li mu so ku foyil ne dangaa ñëw di ko use yaa fa dee de ah man soo gisee ma bàyyi sayti waltu sax oo bàyyi ko sax ah because bugguma sax xam nga li ma lay wax ne nit am li mooy wax suma diggante moom man walta moo ma gis si mbedda bi laayngal ma boppam ah ñoom niñ ko xasulee man xasuluma ko noonu de yaa ngi woon sax waaye dem eh, yankuba yankuba walta onkulaam yankuba bricks boy kuñ dee wax bricks boy ah ah moo nekk naatee xabi ak e doma bi suma diggante walda te man walda wit walda without walda mi am surviving yaa ngi mën a sax jotooyu maa te ku laal walda laal na nag yee kóolu la gannaaw lay féetoo booy te góor da ngay doon yaa ngi mën yaa ngi mën waaye booy ñaar booy bakaw yu fa digga noonu ak am bricks bu mun a fen boobu naatee boobu noonu di duulal walda yaa ngi understand suma baax sax cob na ko suma xaalis cob na ko. waaw one pack am na am na ñu nekk di laajte ne la moo tax dem la si Senegambia bridge inauguration bi. I was not called for it. Why would I go? and yëg naa ko but I will never play cheap. am na ku nekk di wax mu ne mu ne you are best for insulting. ok depending on when you when you deserve an insult. kii mu ne what is your Facebook name. non wuyu mu ne am best for insulting. Mm-hmm. if you if you do something which I have to which you which I have to insult you, mm -hmm. I will defile your mother. Read everything. man kay maa ngi read. read. <laughs> mu ne lan mooy sa Facebook name. my Facebook name Bala Musa Bala Sega. kii mu ne ay get up bro. big man one pack city. <laughs> <laughs> what is the level of your perception in the future? Come on. To set a legacy, man, whereby everybody will survive and survive from it, man. And everybody will benefit out of it. Not a bad legacy, a good one. I want to die and, and, and leave a legacy whereby people will be educated and mm -hmm. this, is, this, this, this is what I'm yearning for. Given well, stop insulting, we love you. Yeah, I love you too. You know, the haters make me go mad. How can someone be best in insulting? You don't compliment you don't compliment me on nothing other than something bad. So I would respect that fan who said I'm the best. Let me stop. Kimene whether you are single or whether I'm single. Mm -hmm. Or you I'm, are in love. I'm in love with Quincy. Quincy? Yeah. Quincy Jama. First class chick. Tell him to mind his language. You never mind the language. I'm in love with Quincy. I'm impressed the way you handle things. Thank Big you. up one pack. Thank you. You wanna know my love affairs? I'm in love with only one woman in Gambia, Quincy. kii mu respect large one pack. respect people. <laughs> yes sir and a child i am not going to di wax mu ne Gambian child moom moo la daaxa si local yooyu duñ benn oh boy bu ma yab suma waay la boy respect il n'y a qu'à se dire ñun naa fi góor not nii duñ di ñëw la de ite yàlla nee la musique ni na musique man kilin de ba nii la mooy la nag fay dundam kono i baa rek la daa yàlla mun a freiné de i tuulee kesoo ok. Can a guy do your thing, do your thing nice. the One Pack is saying the truth. Much love for putting the truth out. I cannot have friends because I always. Truth of One Pack. One Pack boom baddest artist in the Gambia. One Pack you only ni ma read comments ngay ciiku. Read them. Waaw maa read doo I tweet to our security officers. What? This man is non. Is non. Comment by them, Nari. Demut, read al boy. Manko, manko, manko, scroll down, Them will check al boy. You think I'm a. Kimuna, stop lying. Stop insulting one pack. Money. Security officer, you know. Labu Angari. One pack, comments, they are coming. comments are coming. So the ones up, guys, you them, they want to scroll down. Scroll down. Well, I'm not an illiterate. I'm used to this. Okay, you ñëwal yow nga read ko kon. mu ne la. maa sound. that I should be arrested. Wow, something like that. I know your father would be arrested first. Ask him about his G about G. You I love about G. I don't want to talk about failures. Tell me something progressive. Don't ask one part this past this past story. boy really? I will I will I will, I will sing one part. am na ñoo xamante ne How sa lyrics Why don't they follow? follow. let them let them check me on YouTube. Now one go, sister tell him ST is the best. no hard feeling. Freedom of speech. ST Gambia number one. Thank you very much. Why does he praise people one minute and insult them the next? Who do I praise? ST Thumbs up for you. Maintain your career. But me, leave me alone if you don't want to die in your career. That's all. I don't give a shit whether he's the best or the rest. I don't care. I'm doing what I'm doing. Fuck ST, man. Let him leave me alone. One pack, no insults. You are too smart for that. You know what's up? No more insults. Let's try and listen to positive side of one pack. This is what I'm saying. Let them help the people incarcerated and help the poor on the street and make this, let this government make, uh, uh, um, complete the, uh, the work Yajame has stopped on, you get me? Let them finish it, boy. Keep me the Bangladesh, boyo. Ah, Bangladesh boyo. I've never been to Bangladesh. We want to see you dance in one pack. read something more important. You yaa married comments everything. yes. okay one pack you should chill and take it easy. yeah I'm easy. please I want to know his first his single or oh, one na you are single or you are in relationship. I'm single, I'm in no relationship right now, and I don't want no relationship. I, I, I'm in love with only one woman in the Gambia and, or in the world, that's Quincy done. First class check. kii mu the empty barrel. Oh yeah empty barrel make him make him wave in the air that you are wasting your time watching the empty barrel so you are more empty. kii mu my star is dating with top class lady. pardon me. My star is dating top class lady. It means that you are dating with a top class lady. I'm not dating her, don't get me wrong. I'm in love with her. You understand? You are in love with her. I'm not dating her. Don't don't give don't contradict me. Mm -hmm. I'm in love with Quincy. Mm -hmm. First class chick. But I'm not dating her, we don't come to terms. Mm -hmm. So when Solenai in the na kasurun nom, mm-hmm. gene the mase man na le de man kenu madugal Quincy na no mo ko ruse, ragalu mo ko wahe ken de rusu Yeah, kum na hariya I don't know Queen's baby for us, one pack. Stop the insulting and focus on your career. My manager is God and my promoter is God. So anything which is fake, God will never embark on it. So it's a good fat fat mangi rice. Yep digala ni my order. So yala mo lul. Amulen dara lulul benam mistake in the drengen fale in Gambian. Kimule one pack, why are you angry all the time? Because the system fucks me up. Why wouldn't I be annoyed? I wish I can change everything. I'm not, I'm not going to talk about the guns that are imported in the Gambia. The guns? Yeah? Guns in Nakalenduge, Gambia. How did the guns get inside Gambia? Where are the immigration? Where are the borderline officers? Where are the people who are mandated to... Yo, don't ask me about that ask government why the naka la gone si duggee fii negligence of our authorities and gone si ñun suñ baree fii xam nga dama dee toog bi mer bu boobaa nag dañooy fetalante fii yow ana njëriñu government where is our securities ah time bi Yaya Jammeh ñu waxante dëgg ngoon si rampant crime yi nii amu fi rey nit baa ngi fi bari sàcca baa ngi fi bari boogu la boogu la bi mu ngi fi bari gangster gangsting life baa ngi fi bari agressé bi lu olof eh, français yi day wax agressé mu ngi fi bari i nonsense yaa ngi fi bari time bi Yaya Jammeh lii amu fi de yee te ñu ne ku ko wax dee man nag damay dee pare naa ko My work guns guns and ammunition they will enter because our security are weak and they are very hungry little bribe they are little bribe they, you bribe them they let you go and the government have to adjust this you know I mean this salary boy their um, employees' employee salaries boy xam nga benn police are ngi complain soldat are ngi complain nañ jokka seen baby, so you get more security there everybody will not fight for your pocket you get me if the salaries are enough nobody will fight uh, fight for your pocket or will take a cheap bribery Why the salaries are not enough minister eh, président yi eh, recognize a nekk It's the hard fact pass your ngi yokku essence baa ngi bari yabaate yii i am not going to mu ne too much weight in your brain. yeah too much weight in my brain that's the peace part I wish to know what's more in my brain. kii you have more views than any other Gambian artist. that thumbs up for that big man I respect that you see the guy who said too much weight on my brain ah huh? his father used to smoke weed and his mother is, is, is, from a city pop or a class one. Negi chagala yayam feke feka bayam nusei. Lota dumuna gizdegabi. You wanna see me, map? Let's go. One back. since sixty uh, beginning bi da nga waxone like no saga because of the respect you have for the office. So lower waral li tay? Bulo kuy provoke. Yeah, Wagwan. Now, one fan you, you called it? iPhone sorry. I'm right. <laughs> five minutes, I'll call you back, yeah? I'm on an interview, next five minutes. What are your plans for the music industry? My music, my plans for the music industry, let them respect Wagan and Black Links. You get me? Because without Black Links and Wagan, there is no music industry in Gambia. Yeah, I understand? X Miles, big up. Yeah, ngi understand so naa fexe naa fexe life bi nañ stop you get me Black Link stands for the whole Gambia you get me You can categorize eh, categorize like taking it to another part another town and all that those are just hypocritical moves you get me yeah wax sa they are hypocrites man maa ko ENC ak hypocrite lañ xamu ñoom ñu dee toog ñoon leen dee award te bu doo man Gambia ñu ma award break breakthrough artist of the year is it from wax sa those hypocrites wanta sa fans yi ñu bëree ngay wax pour nga woyal leen right now nekkul si muuti woy sa fans yaa la nekk di seetaan rek ñi la ñi la ñi la safoo ok kii mu ne sister tell him that he have nothing in in in his head Okay. Hope your father has something in his head. That's corruption. What's on might be here? Screen recording. Kimune, he has no career, so he, so he what to act, while to get a foolish. Is he a woman or a male? A female or a male? Kiro Can you sing for the New Gambia? New Gambia. Mm -hmm. I'm not living in New Gambia. I'm living in the same Gambia, the old one. Lu tax nga wax loolu one part. Because no changes. No changes in nothing, what sense? Nothing changed. Nothing changed to make this country new. Why président bi change na one part. président bi lan la fi def. ah change na. change na. waaw for his head and pocket. ah ok and his family. ki mu ne dabuy one part doon jéem. Third Gambia. Third Gambia We lost this. gis. Gambit I don't know. one part ah gis na kii na daf la bëgg a dof loo de. mu ngi ask him his ten years challenges. My ten years challenges. Mm-hmm. I'll make you proud and make every Gambian a proud litigant of this country by mm-hmm. my music. I'm not gonna be like these local champions. Boy, read everything. maa ngi read one pack loo bëgg legi. léegi ma jox la read ko ah wan paak leen fi am tey mbokk yi yéen a ko gisandoor ah, wax na li nga xamante ne nii nag ah, noonu la gisee li nga xamante ne ni moom mooy goon suñu indi si biir dëkk bi ah, xalaatam nu ngi ko gisee si tuyaaral si dem seeti li nga xamante ne nii moom mile two bi wan paak ba tey nit ñi di laajte ñu ne who is who is whose son is this my mother's name is Alimadu my father's name is Baisega ñu ne ñu ne ñu ne nga woyal leen sing for us gaa ñu ngi insist ba tey one part please one part gone had gone have arrived you have to find one I will no doubt I must have one because this fuckery I'm not taking it I must find one ki mu ne cey Gambia bi what I want to know what I want to know if this man is a comedian or a singer you think I'm a comedian or a singer am a am na révolutionnaire xam nga Gambien nam nga lan la bañ ku leen ay wax gat gi ku leen ay wax dëgga ku leen ay génnee si seen si yu bon yi ngeen nekkee capaloo yooyu yaa ngi koy jëlee comédie yaa ngi na am ndax comédien yaa ngi ko yaa ngi dégga li may wax fu may maybe sa baay mu ngi nekk si government bi mu ngi def lu bon oo sa yaay yaa ngi def lu bon maa ngi koy wax mu ngi lay bon bon xolloo so yow you know it's a cap wear it if I mu I'm a musician or a politician? I'm not a politician, I'm not a musician, I'm a revolutionary to every wrong. If people are insulting you, don't respond them. Would I respond? I will never respond because I know you will not look me in my eye and insult or else I eat you. Straight, I just look you, I swallow you. Insult. Do I care insults? Insults are the hype. am ñu ko gisandoor tey nag ñu am fi ki nga xamante ne nii moom mooy One Pac ñëw rek si studio bi fii nii nag toog ñu wan ko ah, ah, li nga xamante ne nii am ak moom waxtaan ah waxtaan mi nag gis naa ne fi mu toll nii am na maanaa de One Pac looy wax sa fan si seetaan. lu may wax suma fan si ah nañ déglu rek stay real and blessed si ngeen mi bu leen dugg si no corruption no hard feeling no hypocrisy au pen. Be real, boy. In Gumiala, one day God will come your way. But read the logist. My sister tell him that he is the most useless man in the Gambia. Yeah, like your husband. If you don't have an husband, you are the most prostitute in the Gambia. Are you a brother with Big Fa? Well, that deserves to be sister. No. Big Fa is a friend. Boy, hello, Gogala. Boy, Gogala, boy. Da Costa, call me next 10 minutes, boy. I'm on an interview. Stanga, one pack. I'm a star. <laughs> I'm a fucking star. Reader leave. Why is GA failure? Why is GA failure? Huh? Mm-hmm. Yeah, it's just a failure. He's a bad man. He don't want to see youth getting high or stepping the ladder. He just want to be there by himself. So he's a failure. Jibon tun la de technology yuhuko. He's a failure magowa. Kana mamsa sibuta misa mahol ko wako luhe. You know what I'm suspecting from you? Read every comment. Box. I'm reading everything one part. commerce nag nekk na loo xamante ne nii bëri na bëri boo xamante ne nii ah fooguma ne naa mën a riit yëpp waaye duñ def dara rek lu riit yi nga xamante ne nii dinañ ko jot dineen ko jot a gis fii nga xamante ne nii moom mooy ñi nga seetaan pour one pack rek mun leen a tontu one pack kii mu ne nga seen ko sa nomba bi 225 mu ne iPhone 5 so so what of wax Yeah, I'm married comment si nga maa big up from Italy hope your mother gets iPhone 10 or max me I tried I have iPhone 5s Kimune I never seen any anywhere that SD speaks about this dude. He is a cashier and looking for fame. We see him as a comedian. One pack is small. One pack will invite you to UK. Will you come? Invite your parents or your family to UK. One pack, dama wax nag ma read comments ba pare ma laa di def comments ngay defante. hello. Mom now never talk about ST. ST is the one undermining, going and talking down. You get me? Getting low. The dog. gémmiñaam bi ni ganaar di dox di wax si suuf warning on me man na xawma luy Peter Bawda Bosey loolu tax man damay comme all out ma wax li mu nekk di def yaa ngi understand he is threatened by my appearance or my my my talent or whatever I'm doing so foog mu dem si suuf ma wax Gambia luy ST ST benn affaire la yaa ngi understand nim noppee noonu noonu la bonee dat obiya maan harkati jalan boobu noonu nama faale ko ah one pack ah, am na ku nekk di wax mu ne you need to change your morality like how do you want me to change boy be cool na boy afa en One Pac mu nekk li nga xamante ne nii nag ah, nit ñi bëree ngi seen si seen comment. Ah, mu nekk comment si bëri nag. te nga xam ba nga xamante ne nii ah, lu nekkul yëpp leen mun a riit waaye yu ñu jot a gis rek kii mu ne throw him out in studio. Mm, maybe your father own the studio. But if, if your father don't own the studio, man, you are unfortunate. I'll be there. I'm here. Where do you get your, your inspirations from? I get, my, I get inspired with, by Salah Benz, Gambia's sick and psychotic, bike man. Read everything, please. One pack, drink attire, laugh out loud. I don't drink attire. One family, bro. Let's give each other chance one pack is my favorite, always. Thumbs up for that. Bro, uh, bigger bro, much love to you. Love to you too. What is the problem between you and Esti? It's just a fuck. Let him leave me alone. Let people tell him to leave me alone. I'm gonna damn day them boogie event. Huh? Now go there them boogie. This sports question is one part gonna be the same platform with me? So ko ne yee mu ne la so that's bad mind na am naa ko ñetti yoon na I get the stress I get that for the third time yet ñetteel bi dama koy ut ma def ko lu seer maa ko gën a dox Billahi walaay talaay li ma ñeme esti ñeme ñu ko Billahi. and xam nga ni baa kesoo la drop ah watch my response sama kesoo is coming to eat him. How much to book you one pack? How much to book me? Call my management. I think you said God is your manager. What? I think you said God is your manager. Yeah. So how can we call God for that matter? No, you cannot call God. So God has God, God will not even give you nothing. He will pass it through someone. So for you to that someone? Thank you very much. Just still spot. One pack we we we depend to your back. One pack. I really love you so much from Ibrahim Abba. I swear to God, I love every Gambian, every clean hearted Gambian. And I wish to change every dirty hearted Gambian. Keep it up. Keep it up too, man. You are very funny. Whatever. It's better than being stressed and mad. Please, people, leave one pack Tell back in Lord. Tell man them. acts in positive things, people. You give your dial on media, Fame Hunter. Whatever. Be a, revolu- be a revolutionary like Martin Luther King. Excuse me, the guy who said fame hunter. Maybe you, you, you don't even pay nothing for your own country. Me, if I die, public holiday straight. Even you, you know me. You nonsense man or woman. I'm not saying whether it's a woman or a man or, or, or a male. Stupid people. I don't know why you Gambians are like this try to excel from this analog level. We are in 2019, automatic, high-tech world. You are just stupid. You see, this envy and bad mind and grievance, it will take you only backward, will never give you progress. So change, please. Gambian youths, change for better. Yeah? Live the worst life that you have passed. May Allah bless Gambia and Africa. Amen. Amen. Keep it up, bro. Yeah, keep it up too. That's my star, way up one pack. You know what I mean? this is how we gonna do it. I'm a big fan on your Don't of your thing, kids. Boys. Don't watch that thing, we're coming. We're killing every fake here. ST is in high level, you are on the level. You have no talent. That's your problem and his problem, but let him let, let him leave me to be. ST Birkama Boyo is the best. I'm satisfied on my thing. I'm not copyrighting nobody. I'm not licking nobody's ass. You are all but a man. You're the legend. I'm the legendary, not legend only, the legendary. camera Boyo is your master in music. No, it's his own, his own master and he and you the comment the guy commenting your master, not my master. My mother is my master and my father. Gambia nice. Gambia sweet. You know that bro ST, bro ST will never wash, waste his time to respond to this. Uh, he has three pack. times, three times he has did three times, so that record has been breaking. So let him be. Be who you are, my brother. You are blessed. I'm blessed. Even you don't say that I'm blessed. Fuck ST. You wanna make me mad? Okay, One pack ST is bigger than you. And your father. Next time you bring medicine to one pack. Tell me something positive. I don't want to talk this. ah ba tey it ñu ah, nekk one pack ah, bañ na nag ne du wax ak ki nga xamante ne moom mooy ST moo koy nii leen koo defee rek ah, di waxtaan ak képp ki nga xamante ne nii rek ñëw nga fii rek ma kaf ak yow ree ak yow ndax ñi ñëw seetaan tamit mun see ree at least tey moom ku stressoon xam naa sa bu ñuy génn na ndax one pack one pack tàggatool wala yow bëgguloo dem. esti waxal leen ko bàyyi ma su ma bàyyiwul dama koy rey physically am ngoon pare na. ah one pack yow noo tàggatoo noonu moom. noonu laa rek ñagas na de noonu laa rek laa mën tàggatoo. I'm mad I'm extremely angry now I'm annoyed seriously. Let him let me be. Let him let me be. Yeah? And now I really hate him. I swear to the Holy Quran and my faith, I hate him now. You know, before I was taking it like music. Now it's personal hate. Ah, la muy ah, bi nga ni ñëw na rek ah, bëgg rek ñu waxtaan ak mom ci euh, li nga xamantene ni loolu la bëgg pour askan wi dégg ko ah. euh, ba tay it ñi nga xamantene ni mom moy fansami li jógee ko fi nak ci Gambian Talent Steve di len jaajeufal ci sen sétane ñu rappel respect I love you sama rom su bare sa sa sa yi things will be very changed. Why you are not selfish so respect you for that Your platform is not that hypocrite and selfish nonsense platform. yàlla jaama rek lam laay defal sa time rek laa amal laa am maa ngi nuyu suma yaay ak suma doom bu jigéen ak lady queen si first class and fuck every batty man in Brikama ku nekk góor jigéen Brikama middle finger am ah, boo koy ñu ko gisandoo rek li leen leen indiloon loon fii si Gambian Talents TV di leen jaajëfal seen seetaan bu rafet ah, ba teyit rek ah, comme nuñ koy defee rek di leen indil nit ñi di waxtaan ak ñoom fii si biir studio bi jërë ngeen jëf si seen seetaan bu rafet